man maa ngi commencé bëre 2001 2000 2000 ci combat Rock ak Rasta maa ngi bëre woon ak ku ñuy wax euh, Issa après mu bëre ak Tafa Boy Bambara bëre ak non bëre ak Xaadim Ndiaye numéro 2 bëre ak Tafa Boy Bambara bëre ak Ousa Sow bëre ak Ballou Diouf bëre ak Dun Xaaf bëre ak Sokaas bëre ak Rong Mbalax bëre ak Souley Top bëre ak Xaadim Ndiaye bëre maa ngi bëre presque mën naa ne am naa ci huit victoire. ak euh, quatre défaites ak euh, benn nii la carrière bi positive na mais dernier temps yi am na ci loo xamante ne ni euh, xaw na ci am ay kii jafe-jafe quoi te nag àdduna moo demee noonu tamit parce que dafa am des hauts et des bas nit mënoo chaque jour muy neex léeg-léeg sax da ngay am ay jafe-jafe pour mën a mën a reculer mën a defaruwaat bu baax mën a ñëwaat. Sa mbër la mbër la comme mbër yëpp man moom xam la mooy sama problème man sama bopp laay calculer fi ñu toll nii d'accord dinaa ko calculer parce que adversaire la te la boo xamante ne nii bu ñu respecté la parce que làmb la parce que yaawu jaal sax sooy bëreek moom làmb la amul làmb bu tuuti léegi yàlla dogal na dafa def ay preuve ba yegg si fii mu yegg si yàlla dogal ñu war a bëre damay bëri moom di ko sous-estimer wala may kii non combat la combat bu mag combat bu mag boo xamante ne nii man xam naa li ma jaral. làmb léegi moo tollootul foo xamante ne nii damay xaar diw pour bëreek diw parce que man ñi ma naru ñi ma war a bëreel suñu nangul bëreeg man duma toog di leen xaar parce que loolu moo ma indiloon année blanche mieux vaut ma dem bëri ji parce que man làmb laa am mooy sama métier defuma leneen lu dul làmb su ma toogee bëriwu ma damay perte. waxtaan wax dëgg ca la am na fi mbër yoo xamante ne ñu ngi ci làmb ji rëññee est-ce ay doomu mbër lañ Eumeu Sène doomu mbër la hmm? Eumeu Sène du doomu mbër Gris Bordeaux doomu mbër la Baboy doomu mbër la pourtant ñu ngi woon ci làmb ji rëñ ah Tapha Gueye est-ce doomu mbër la woon xam yooyu boo koy boo ko defee sa bopp sax dalay sonal man damaa gëm sama bopp. gëm ne man war naa mën a daan Sa moo tax mais du ay calculer ay doomu Double la ak loolu parce que waxtaan wax dëgg ca la Double Less bu jouru combat waaw du dugg ci biir géew bi kan mooy bëri si Sa kon léegi loolu ban sens la jam am bi bu laajee ñu bëri dañuy bëri bu laajee ñu xeex dañuy xeex bu laajee attaqué ñu attaqué bu laajee taxaw xaar ñu taxaw xaar la ça dépend ci jouru combat bi li combat bi laaj rek pression non parce que xam nga ku bëre bërewaat bëre bërewaat da dangay dem ba da ngay miis làmb da ngay commencé xam pression làmb da ngay dem ba danga koy miis. ki jóge ci défaite moo gën a bëgg a daan ki nekk ci victoire di jóge ci defet da koy jaral parce que ci défaite lay jóge dafay bañ a delluwaat. di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal yëpp di ko ñaanaat di ñaan doomu aadama yëpp ñu yaatal xol yi ñun ñëpp ñoo bokk suñu Sénégal supporters yeeg mbër yeeg parce que ñun ñëpp benn lañ dañuy liggéey rek bu jeexee jeex na supporters yi ñu xam ne ñun ñëwuñu ci làmb ji pour guerre wala pour dara dañu ñëw pour liggéey pour ay quelques minutes bu jeexee jeex na di leen ñaan ñu xamee loolu noonu ba pare di leen ñaan jour combat bi le huit incha allah ñu mobiliser wu man maa ngi woo sama supporter yëpp fu sama supporter nekk ci Sénégal maa lay woo le huit nga ñëw jàppale si ma ci sama diggante ma Sa Thiès yàlla may ma ci ndam Timbermans yi man maa ko créé dama dama jël dama jël xeetu neexation yëpp dajale ko boole ko mu jox ma Timbermans <laughs> yi Timbermans yi moom naa naa ko indiwaale stade uh-huh. waaw naa ko indiwaale waaw fooy non Sa Thiès fa mu may ko ci Timbermans bi uh-huh. waaw ñu xaaj ci Timbermans bi non kilo libre <laughs>